wahalaan bi kum fa def malaise moom Ousmane Sonko daanu na xëlës ba ñu yóbbu ko reyaa niki démb vox populi moo ñu ko xamal ak kaay yu bari fu ñu xëy di ñu yeggee ne Ousmane Sonko ma nga réanimation maanaam diggante dund ak dee hay machine ci la nekk awakaam maître Ciré Clédor Ly ne waru ñoo seetaan bakkanu Ousmane Sonko wér gi yaramam nekk ci ay jafe-jafe yu garaaw ci koo xam ne yaakaaru téeméer boo jël ci askanu juróom-ñeent fukk ya la maa ngi ko waxee ci 24 heures kaay ne awakaam ya ak i jege ñaaleem ba ca waa yeewi askan wa ña ngay artu xakka dànkaafu ci bakkanu Ousmane Sonko ak wér-gi-yaramam libération na fañ ko rawale rayaa guddi àllarba jàpp alxamis booru quatre heures du matin ci la def malees daanu ba tax waa yeewi askan wi fa ñoo artu njiit réew mi Macky Sall ne lépp lu dal usmaan Sonko lu ji njaaga moom mooy njaag yaaw fa ngay xool juróom-ñaari fan a ngi nii Ousmane Sonko fa bañ ne kenn du ko faj te fa caa boole continuer ba léegi garaw da la loolu bu yàggee du l'observateur ne faa leen di xamal leen na grève de la faim nit mën na cee dee wala boo ci deewu tamit dootoo wérati yow fa nga xam ay na grève de la faim bu demee ba ñuy wax ay ñeen fukki fan foofu ñaan ci njekk ngir ci kaso gi ak lu ëpp junnee nga xam ne a jàpp ndax politique tëj leen kaso ma ngi ko ñaanee ca direct news ci info yéene kaay Bougane Gueye fa féddaliwaat ne faa lay njekk bàyyil Ousmane Sonko mu génn kaso ndax nekk sa adversaire politique warta tax yëf yi yegg ba ci genn anam gi te yow li la fi dese juróom benn weer rek la ci ngay dem ña nar a dem ca mbootaayu xeet ya ba nekk Genève mooy awakaay Ousmane Sonko yi libération ne au commissariat bu Nations Unies fay dalal tey ci àjjuma ji awakaay Ousmane Sonko yi déglu leen ngir ñu wax leen li Ousmane Sonko di daj ak i farandooram ci gàttal fa ñuy kalaame ji njiitëram foofa si du quotidien ne grève de bi Ousmane Sonko di def nii sénégalais yéenekaay ne farandooru Ousmane Sonko ya nga xam ne fa demoon rajaxe daluwaayu réewum Sénégal ca New York consulat ba fi mu toll ni takk dara ñu ngi leen di wër 3500 moom lañ fas yéen a jox képp koo xam ne feeñal na ñu def ñaawteef bi ni mel Ousmane Tunkara nag fa wax ne moom laalewut ci tojate googa te dawut làqatuut maa leen di xaar regard yéenekaay moom fa xamal ne Bougane Gueye Dany yàkk na Khalifa Sall kàddu yoo xam ne weñ wu ci dal dee bi mu amal Ousmane Sonko ba pare nag xëlbatiku waraale xab génération lëmm ndax li mu def nii fa ñaaw leneen lu mu ñaawlu ba tey moom Bougane Gueye mooy gouvernement premier ministre Amadou Ba bi nga xam ne fa tële ci saafara jafe-jafe askanu Sénégal yaaw seetal réew mi fi mu toll nii fa métti dund gi fa cher ñu ne déetewaay ndaw ñi amuñu xëy ba tax fi mu nii ndaw ya duggoon ca gaal ga faatu bàyyeekoon faas booy fay tegtal ne gouvernement bi fa échec fa lajj de ci xëyu ndaw ñi ma ngi ko waxee ca wen e kaay leer ñi ja mooy ab central électrique ci wàllu courant bi ca Cap des Biches ab turbine ci wàllu gaz ak ay générateur fañ ko faa daloo laas yéene kaay ne lii kay lu baax la fay tax njëgu courant bi fay wàññeeku Sénégal ba tey yéene kaay bi moom fa ñoo xamal ne njiit réew Macky démb fa dalal ay kàngam ci benn bokk yaakaar ak ñi nga xam ne ñoo doon dox tànk jàmm ci seen candidature yi naka noonu ak ay responsable yi APR te tey jii sax fay dalal waa gauche bi ak ñeneen lépp ngir tànn seen candidat critique yéene kaay ne man dafaa xamut la ana lan moo làqatu ci ginnaaw tekki tekkaaral noppi gi nga xam ne njiit réew Macky Sall fa ko noppi ba léegi waxut kan mooy candidat bennoo yéene kaay bi ne terewul nag jamono ji bennoo moom kàtt ga fa jaxasoo géej ga fa sàmbara ku nekk ngay woote ne mooy candidat ba waaye Macky moom waxagut l'observateur na ko faa lay xamal leen njiitëram Macky Sall waxal na boppam nee na man ki ma war a tànn xam naa ko ba pare te tànn naa ko xanaa faa ko waxagut te su fekkee fa ngeen a foog ne di yuuxu naan man laag ñii naan diw laag loolu mooy tax ma soppi wala ma deltu ginnaaw yéen fa ngeen maa xamut xalaatuma ko sax li ngeen di ma l'observateur ne njiit réew mi nag fay bu ñibbisee ci lay wax kan mooy Moussa bokk ci ñuy jàppale njiitëra Macky Sall nee na benn bokk yaakaar mënta gañee wote 2024 yi fañ koy ñàkk ma ngi ko waxee ca tribune yéen kaay ndax fa jàpp ne bennoo dooleem fay gën di wàññeeku PS ak AFP moom dara nekkatu fa xottu kese la fa ñuy langaamu ci électorat wu njiitëra Macky Sall yoor yoor yéen kaay ne man daal faa leen di wax leen ak ku njiitëra Macky Sall mën a tànn bennoo moom dana xam ñoo xam ne duñ ca ànd te fa ñu génn nekk candidat <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne lu jëm ci màggal ak Tuubaa gi tax na xalifa général des ni ki démb fa wax ak askan wi fàttali leen teggiin ya nga xam ne moom lañ war a sàmmwanteeg dëkk bu sell ba di Touba ci màggal gi moo xam ñay ñëw di màggal si taalibe yi ak ña fa dëkk ñëpp fa leen a wax ne képp koo xam ne fa ngaa salfaañee teggiin maanaam li ñuy xaayee ca Touba na la wóor ne fa ngaa ñàkkee xorma ku tedd ki di sëriñ Touba vox populi moo ñu ko yeggee wal fajir yéene kaay yeggee ñu sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke kàddu ya mu wax di ay waare jëmale ko ci ndaw ñi libération moom fa xëy di ñu xamal ne mama kundul ndekete yoo mësta ëmb mësta xam doom te mësuñ koo sàcc ndekete lépp ay tappale la ak wax lu du dëgg moomaa ci boppam fa toj kaas ya wax na lay dëgg ca kanam enquête kat ya ah, yaaw fa ngay xool maman bi mu demee gynécologue ba fa ko visité seet ko bi mu paree mu wax takkadare na leen gis ngeen kii xaajut bay wasin ndax jigéen ji wasin ay bërki démb ak fan yi du mel nii mu mel te benn mandarga jigéen ji wasin nekkul ci moom enquête kat ya na ko waa léegi loo wax xam nga ne fi mu ni sa dil bi toj na kalaate na mu ne leen waa wax na dëgg kay musumaa hëmb bay benn bés ba mu yàgg rek faa njort ne man mii faa hëmb léegi faa xoo sama jëkkër wax ko ko téléphone ndax moodu moodu la léegi bi bii ma woon ndeke te wax naa ko sama jëkkër ba pare mënatumaa deltu ginnaaw moo tax faa jël ay morso di ko rokkos rek sama biir bi muy ngand rek di ko ñuux rek ummi ndaw ndeke xaritu mamaa la moom moo wax ne moo for mamaa ginnaaw bu ñu ko sànnee ca wetu kastoor naka noonu maam jaara seen mooy ndaw si doon wax ci internet bi di dëggal naan mamaa kundul fa xëmb ndekete moom itamit ci dil bi la bokk ba ci Amadou Wele xab xale bu góor la yow fa ngay xool fa xam benn ingénieur fa doon jéem a baayam bi ko jur yàllaa ca def jàmm waaye bàyyi ja jamono ji donte faatuwut ma nga ca diggante dund ak dee yëf yaa nga amee ca cité kër góor gi ndakaaru <laughs> waa ma ne fa yoon naar bi xoromam de jéem a sa baay ak lu mu la mënti def warut la waaye jur xëkk la doom nen la fu ñu fénqantee nen ba fay toj leen daal dinaa la ko xamal bala ngaa dee faa njort na ci torox wala kaanam musiba naaru laay dal la la abonné leen wër ci réew mi ak ci bitim réew